lu ne danga ko dégg waaye fii nañ xam ne la Sëriñ Tuubaa waxoon la Sëriñ Tuubaa waxoon ci digg ma tubaab yi dafa waxoon ne sama dégg tubaab yi kenn doyuma ci moom ci ñoom ndax ku dul man mën nañ la xupp wala ñu xëpp la man nag mëni suma xupp mëni suma xëpp loola nag képp ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa ku ne nit ñi dañ dul xalaat waaye Sëriñ taxaa wala ña ko jëkk lu leen nituk adduna mën a defal lu tax lu leen taalibe Sëriñ Tuubaa yi defalut lu leen nit nitu nguur jox cam at balaa mat ñaar fan ab taalibe jox leen ko te duñ ko jëfandikoo sax am naa ci lu ma leer amu ci kenn koo xam ne lañ la jox yaa ngi koy jëfandikoo dañuy suturaal rek màggalu Tuubaa gi liñ ci ñàkk kenn xamul lu mu toll ñaari nguur yi nga xam ne sama kanam la moom te xam naa ne jàpp naa ne ñoo tane ña leen njëkk li ñuy def ci màggal gi. buñ ci génnee lañ leen di ganalee du ko du ko mat te nit ñi xamuñ ko waaye ñun Sëñ Tuubaa tax ñuy def ku fi ñëw teraange Sëñ Tuubaa ji lañ lay jox xamuñ leneen te li ma la wax yomb naa yomb naa yomb naa vérifier ñaa ndax ñi ko doon def ñëpp ngi dund kenn faatuwu ci li ñu joxe ci màggal gi mu jëm ci ñun ñii moo ëpp liñ leen di ganalee ko ëpp loolu daa marta leen ndax day gindi nit ñi mu dimbali leen ñoo xam ne màggal gi taalibe Sëñ Tuubaa yi ñoo koy def kon nag ñi ngi sant taalibe yëpp bàyyiwuñ kenn di ko